def na nga def waay Ndiaye. Sadio Ndiaye. noo def. maa ngi fi rek. mbaa yaa ngi jàmm. sant baax baax. alhamdulilah ñu ngi jàmm baax. alhamdulilah maa ngi jàmm baax. maa ngi jàmm baax. maa ngi fi maa ngi fi. alhamdulilah. ñu ngi jàmm baax. ñu ngi jàmm baax. alhamdulilah. man. tey guddi metti laa nekk. waaw. ginnaaw yàlla. yow fii nii ku fi am doom. yow la ñuy woo bu de la ko tamit yow la ñuy woo kon tamit suma ma ba am ci ay problème damay ñëw ci yow ba wax la ko parce que suma dëkkando bi ñu mu jëndee xal ba léegi mënuma am jàmm coow guddi ciow suba sama soxna damaa teg firnde boo xamante ne mënuma la wax ne fi la yem ah, waaw parce que sonn naa trop nag solo na trop waaw léegi nag ma ne woon nag naa ñëw ci yow pour nga waxtaan ak moom. soxna si waaw soxna Fall. ah Tabaski nekkul force boo amee xar da koy rey boo amul nag nga nga nga jàpp nga jàpp ci ci leneen ah ah dëgg yàlla léegi ah. trop. gis nga si am ah. gis nga léegi daanaka jigéen ñi dañuy teg seen borom kër loo xam ne daanaka bokkul si Tabaski ndax yàlla su borom dafa am yërmande tabaski du force mais fi mu nit ñi léegi ñu ngi concurrence te wàllu xar da ngay wala ñaar wala mu jënd benn xar boo xam ne mënul na sa jënd ñetti xar pour joxe mais da si jënd benn bu mag di ko tiitaroo te loolu du tabaski koo xam ne amul xar ko teg fi waaye na sa xol seen incha allah dinaa ko ñëw waxtaan ak moom. incha allah loolu moom bu dee loolu amul benn bor incha allah. ndax tabaski du force ndax nit ki li am dong lay tabaski bu amul mu mu tok xaar yàlla tabaski du force de bu ci am lenn loy jaar. man mom samay tank tay mom loolu la woon ma ñëw waxtaan seeg yow ya amoon na ci yaaka tam su ma ñëwee nga nga lii ma nga fajal mako amul tamit baax na tamit. am amul lenn ma am inshallah allah comme nga yaangi ngi. waaw dinañ gisante parce que yow moom sama wëllëra bu baax nga. waaw loolu wax deug yàlla. en gara lo ci mëna a jappé

te dëgg bi dafa dëgër wallaay xam naa ne bi moom xanaa yàlla doon ñu sutura incha allah ah yàlla baax na ñu ngi si sama ñaw bi ma jox tëyal muda de mau ke pièce par pièce nani mala hotel mau lu am jam na ñaw bi soxor rek ni la la bëgg man yi man sama ñaw bi ah ma ci dal xalé tay yi ma jaaxal nañ ma ñen légui ni ñuy sunu ken xamatu ko ñun de jamono doom bañ ci tollu wa dal nañ jamono ak jamono xaw ma ngeen ko xaw ma ni koy waxee noonu. loolu moo xew daggate ko yéen daal léegi seen ñaw yi kenn xamul lu mu ah, doon xamu ko. da ngeen di sol daal léegi jóg a dox. ah bi lay ah, ànd ak moom dox. ba noonu ah, daal ngeen ba noonu ngeen ko gisee. ah dem leen jamono jaa ngi noonu yéen a ngi noonu. jamono bi sama ñaw ci tere ba laa ko bëgg a yóbbu. dama dégg sama jees ne bu ne mu. man tey waas laa bëgg. ok moo wante boo am jom nag. man daa xale ma fa laa bëgg mu yegg. man lu mu kawe xeeb naa ko. foofu de laa bëgg mu yegg fa. mu gën a kawe rek man xeeb naa ko. daal da ngeen ñaanal rek ndax fi ngeen jëm kenn xamu ko. ah waaw nag. dafa xew ba nga juddoo ba tey moom dama la. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ah soxna si. yow de yaa ngi fi indi ah sa borom kër daal moo ñu suur. jot na ma expliqué li fi amoon ci ay problème mu xar ah waaye soxna si loolu mën na ñàkk ndax sa borom kër bu amul xar rek damaa war comprendre ni euh, xëy na yàlla moo ko dogal mais warul ñàkk indi xar nga nekk di ko di ko si wax lu nekk ah war xam sa borom kër sa kilifa la. ngay def aussi tegoo ko fenn jigéen buy sëy daa war a xam ngi dégg. dëgg nga wala pare ah. dama lay laaj ba xam nga wala pare goo yow imaam. ah yow de lay dem. yow imaam seytaane nga de. ba nga looy yolos yolos see dugg rek naa ma ana xale yeeg say ruuse su couleur yi bari laa xam yow mi naroo wax jàmm imaam xam nga lan laa bëgg. nga ah ci li ngay wax. bankal ma sa yi di ma yow Imam yow lekko ba soo naanoo ba mandi ta leer na ma ni yow lamu bon bon khas nga jël sap li nga koy waxatee xar yobbu ko sa keur sa jabar bi ci nos nga nar ci nos ah léegi man jëli pëgg jeengu ñaay nga nar mako xagn pour lan ak foko tek teg en tout da ngay sey xawma mais bu nga mel mom li nga bëgg do ko ni da la mel ta ni lay mel tay ak suba ak gannaaw suba dama bëgg na nga xamni lepp lu am yalla suñu borom moko dogal ko yalla yalla bay sa to ta fu la ko fekk fu lañ koy dama bëgg nga degg nga wax rek nak li ngay def tegoo ko ci fenn bo beugé am njaboot gu baax da ngay nangu sey té li nga nara a sa borom kër do ci am yalla do ci am yërëb. may la ko melni ni fi yàgg ya du melni yow jalkati booleeg bondé déggoo ma. man ko wax dëgg yalla dé nii nga mel jaxal na na ma trop te sa borom kër ku baax la ya nga may dégg. xam nga lan la bëgg imam ta tabaski yeen fi ngeen ko teg dafa eggul fofu léegi jigéen ni léegi jigéen ni ku sa borom kër amul xar hmm. nga bu ko ya, ray yow duma la tontu. xala da ngeen fàtte yalla suma mo la man duma eh? la tontu xam nga lutax du ma la tontu ndax sa xol daa gànd ku sa xol gànd ku ne matuloo tontu te imam sax xam nga lan laa bëgg nga jug te romb ma te xam naa ne yow li ngay wax ne safuma dara ah, yow soxna eh, li ngay wax ma ni eh waay jugal jugal yow xanaa bëgg nga ñëw sa soxna si xool xool sa tànk yi wee e eh, dama ne jugal yaa ngi laaj kaar yi te jugal e jugal e jugal moom ah baax na jërëjëf yow de romb ma yow de nii nga mel nii de billaay bokkoon nañu bëri tey suba gannaaw suba wala yow déggoo ma jërëjëf ma ne nga romb sa borom kër gi na nga xam ne rombal sa kaftaan bii de ay waay imam rombal te boo demee nga ne téer ba na la ñawal ay ñaw tabaski ak ñaw boo xam ne moom ngay demee sa jàpp nga sol ku la xam ne xool ne xam ne waaw bi yow ko ngeen jom torop te soow moo sama uppkaara ma moo ma yab kenn yabu ma moom mi may boole kii nga xamante ne ni dara safu ko ak couleuram yu bari ku ko xool xam ne dafa matadi moom moo ma yab moom mu may dem daan damay hmm, dama wax sax ndax wax day yàq ba ñëw fii fekk ñëw si nii baati naa